Abdou Sané ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. yow expert nga ci wàllum protection civile nekkoon nga aussi député euh, ci assemblée nationale ñuy waxtaanee mbënn mi nga xam ne dalaat na ci kaw euh, Sénégal laal gox yu bëri euh, ba tax ki nga xam ne moom mooy autorité bi di ministre de l'intérieur notamment déclenché plan Orsec mais yow plan boobu dafa mel nii doyu la wala yaakaaroo ci saafara jëm ci problème bi. non nekkul ni ci plan Orsec. boo gisee ñu koy def dafa fekk ñoo xam ne dafa am lu métti lu leen dal te du ci ñoom la jógee mu nekk loo xam ne dañ ko def pour jàppale ay nit mais man ci sama xalaat lii wolof di naan fajaru moo gën faj loolu laa gëm balaa nawet bi ñëw bala coronavirus bi di ñëw am na ay structures yoo xam ne ñu ngi leen tudd Agri Med ak ak Mat ñoom ñoo publier yégal nit ñi nii at bi ak at yi ci topp ay taw yu am doole ñooy ñëw yow boo xamee ni taw yu métti ñooy ñëw am na lu la waral canalisation bi war nga ci jóg population yi war nga leen ci sensibiliser war nga mën a jël say motukaay bu fekkee ne pare sax nga def lu ñuy wax prépositionnement nga prépositionner ay pompe pour que nu muy tawee. au fur et muy taw ngay pompé ndax bi di dem pour ndox bi bañ a taax au moins yooyu war nga ko mën a def def loolu yëpp nga toog seetaan muy taw di taw di taw mois d'août muy taw début septembre ngay commencé di dégg mbënn waxu ci dara léegi laa fali que taw bi am doole ci benn week-end mu nekk vendredi samedi dimanche ay kër commencé di daanu ay nit commencé di faatu ba ay nit commencé di gën ci mbedd bi di tàll ay pneu na soog a jóg pour ne léegi il faut jàppale les populations ñooñu fu mu leen di jàppale boobu te xam nga plan ORSEC très souvent lan la dañ lay may ceeb diwlin saabu eau de javel genre yooyu la. Hmm. ba pare ñu yóbbu la ci ay école jox la ay matelas ngeen am fi ngeen di fanaan wala ay tentes te boobu dafay indi même dislocation familiale avec lépp loo xam ne am na ci comme perversion. Hmm. ci cadre promiscuité nekk loo xam ne mooy li ci nit loolu. su doon c'est la première fois lii am nga ne kenn teyu ko mais li nga xam ne ci la ñu dëkk indépendance ba léegi toujours mbënn mbënn mbënn mbënn mbënn mbënn bi amoon na fii ba Ablaye Wade ba mu nekkee président élection yi waroon am deux mille six mu randaleen parce que daf ne xaalis bu mu waroon jël pour organiser élection am na feneen fu mu xej mooy fan ñi nga xam ne mbënn mi daf leen laal ñëpp tàccu mu jël xaalis boobu jox ko topp toppatoo ñi am bënn pour léegi aussi bu régler loo xam ne dina am doole ñooñu il faut mu génne leen fu ñu nekk mu wute leen ay kër loolu mooy plan Jaxaay hmm. ñu dem dem yàlla def Macky sal ñëw moom it bu mu nekkee président taxul mbënn bi arrêté bi mbënn bi ñëwaatee lal la wax mu ne léegi comme fii am na benn institution boo xam ne moom la ñuy tuddee Sénat mu mel mu niroo assemblée. Hmm. amalu ñëw nit ñi jëriñ dama koy supprimer xaalis boo xam ne moom laa ko yéene ma jël ko toppatoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci bën mhm. ñëpp tàccu mu ne léegi boobu c'est pour urgemment léegi pour que affaire bi bu bañati am damay def loo xam ne ci fukki at la mooy lu ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations plan boobu daf ko tëral ci fukki poñ poñ mhm. poñ yooyu mooy lan premier poñ bi mooy urgemment il faut trouver les moyens ci la ñu jël soixante six milliards mooy xaalis boo xam ne Sénat moo ko waroon mhm. ko léegi mu ne pour le dañuy wut xaalis boo xam ne dafay toll ci sept cent soixante sept milliards. Mm-hmm. ba nga xam ne dinañu régler tout kenn dootu fi tudd ay problème ban ci biir ñu naan léegi comme yenn waxu politicien Abdoulaye Wade defoon na ko fii yow tam yaa ngi koy def léegi moom ci la ne pour wane ni moom bokku ci. Mm-hmm. mu ne dafay mettre en place loo xam ne dañ koy tuddee observatoire national de lutte de suivi de lutte contre les inondations maanaam ay nit la ñuy tab yoo xam ne fii la ñuy nekk mm-hmm. plan décennal bi ñoom ñu koy contrôler pour que xaalis bi ni mu ñëwee mu dem fu mu war a dem et chaque fois ñuy rendre compte président pour problème am et cetera tout et tout loolu la jël comme garantie ba ñëpp ne eh kii ne nag nekk politique. ba pare ci observatoire bi gars yi nag dinañ ci dugal ñëpp politiciens yëpp dinañ ci dugg mais dinañ fa dugal waa université experts yi ak société civile parce que ñooñu du ñu jaay mukk seen kàddu dafa am lu ñu gëm ba nga xam ne fu ñu nekk léppay leer bu fekkee dégg-dégg ñoom pare nañu pour liggéey waroon nañu ko def. mais def defuñu observatoire boobu boole ci ñu monté beneen ministère boo xam ne moo tuddoon ministère du de de la restructuration des zones de et de l'aménagement zone zones inondées maanaam ñëpp d'accord nañu ni lii di am ci banlieue ay Pikine ay Guédiawaye yooyu lan la dafa fekk nit ñi fu nu ñu dëkkee jaarul yoon léegi ci la ñu ne il faut ñu restructurer bu ñu restructurer mooy comme li ñuy wax daal lotissement pour que lépp jaar yoon ba nga xam ne di am place boo xam ne foofu la foofu ngay gasee ay pax pour ndox mi am fu muy jaar di nga am ay place yoo xam ne foofu ngay créer ay école ay et tout et tout nga defaat beneen aménagement bu bees boo xam ne dafay nekk en adéquation ak la contrainte inondation léegi ñu ne comme boobu moo yore lépp boo ko defalee keneen du mun a def dara assainissement du mun a am ci sept cent soixante sept milliards prévisionnels yi ñu def pour plan décennal ñu ne quatre cent vingt sept milliards koy donc dédié à la restructuration ministère bi si boppam sax tudd ministère de la restructuration bi xaalis yi tàmbalee dañu dawal dawal dawal dawal rek ministère boobu disparaître d' abord ñaar élément ñoo disparaître observatoire amul ministère amul mais lan moo am beneen ministère bu bees ñu tuddee ko lan ministère du renouveau urbain. Hmm. ñooñu ñëw ñu ne Diamniadio bi gars yi ne mais Diamniadio soo fay dem pour liggéey ñu ne la pour déplacement bi terre la ñuy créé loolu moo indi le terre. kon xaalis ba lañ def ko feneen ñu ne BRT parce que dañu ne léegi les pôles urbains doivent être joués au par une mobilité très rapide loolu moo indi comme conséquence ay besoins ci terre et autres là. d'accord kon kon xaalis bi ñu prévoiroon pour inondation yi moom lañ jël ko foofu. bon su ma ko waxee peut-être dinaa la tënk mais je veux dire que. Hmm. yow yaa ngi doon wut 767 milliards pour mbënd mi. waaw amoo ko mais am nga tey 1700 milliards pour nga def ko de terre. Hmm. yaa ngi doon wut 767 mi. Hmm. amoo ko mais tey BRT bi war a jógee Guédiawaye ba fii boobu jënd nga ko. naxee mbaat bi fan la nekk nañu wax la vérité les chiffres sont très clairs. d'accord léegi mbënd bi moo nekk pertement. Hmm. alors léegi nga xaar ba ay nit dee. nga soog a yeewu dina waaw mais man ñi may liggéeyal fan la ñu xaalis yi bëgg naa ngeen leeral ma ba pare am na loo xam ne nit ñi war nañ si nekk vigilant. Hmm. madame yow noo mënee comprendre que kii dépense ba pare moom le président demandé mu defal ko rapport. ana ban ministre mooy def rapport hmm. a munoo ne Abdou Sané yow yaay ministre bi yow laa jox sama 767 milliards nga ne ma encore defal ma rapport ak yomb. fu xaalis bi la vérité. Hmm. seetal est-ce que est-ce que loolu c'est normal. ñu wàllu mbënn mi ci Sénégal te itam plan Orsec xëy na du solution dëgg-dëgg bi nga xam ne moom mooy saafara. non nekkul solution durable. plan Orsec c'est une solution conjoncturelle. cest que dafa nekk solution boo xam ne jooni jooni ngay régler problème bi. mais fajloo fajloo fajloo. feebar bi. ça ah, veut dire que calmer nga da ngay calmer rek mais faj loo problème. d' léegi nag yow ci sa xalaat en tan que borom xam-xam ci wàll wi lan mooy faj euh, góom bi nga xam ne moom mooy mbënd ci Sénégal. mooy lu ñëpp di def nga xam ne dëkk yooyu pratiquement doo gis man moo tax tey boo demee ay moom ay femme résidence ay palais présidentiel du am dara te est parce que lan zone boobu dafa ñu nekk ay zone assainie dañu nekk ay zone yoo xam ne planifiée donc maanaam zone yooyu am nañu jumtukaay yoo xam ne bu tawee ndox bi day am fu muy jaar dem ba ci dex bi ndox bu am la fu muy jaar ci lay jaar ci kër mais bu amee yoonam du bay yoonam di dem tooñ nit yoon dafa nekk ko loo xam ne lu sacré la mhm. luy respecté nit boo ko toojee mu fayu mais boo ko mayee yoon mu dem yoonam. Mhm. gis nañu tamit ci yenn gox yi nga xam ne dafa am euh, inondation nit ñi fa nekk ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma ay euh, liggéey yu mel ni ñeel teer bi beneen bi ak euh, yeneen i mbir est-ce que loolu dëgg-dëgg bokk na ci li sabab li xew ci ay bés bi. dëggal naa wax jooju parce que lan moo am. ci loi Sénégal ci code de l'environnement dañu ne boo amee projet bu mag bala nga koy def war nga saytu projet bi lan la mën a jural ak loo bëgg a bëgg a defar réew mais parfois yaa ngi defar fii di yàq fële loolu mooy lu tubaab di wax étude d'impact environnemental et social mais ñun fii comme nguur buy def projet dafay bëgg a tiitaru ci projet boobu pour élection yi ñëw te élection yi dañu gaaw a ñëw ay quatre trente cinq ans bu amee projet rek lan la fii affaire bi waroon jaar yëpp dañuy naan gaaw leen gaaw leen président bi dafa yàkkamti léegi gaaw leen gaaw leen président bi dafa yàkkamti moo dem ba finalement ñi nga xam ne seen xam-xam loolu la dañ leen di teg pression bët du ñu def liggéey bi nu mu war conséquence dañuy bay projet bi am tey am na ñu bëri dañu seede ni bi terre bi amee ci la ñu commencé gis mbën demoon nañu ba ñu fàtte mbën am na ñoo xam ne ñu ne la BRT bi bu mu ñëwee ci la ñu commencé lii am na ñu ñoo xam ne dañ leen naan péage bi bu mu amee ci le problème yi commencé ñëw. Mhm. ak yeneen tali yoo xam ne nguur mi ngi koy def un peu partout au ñu naan la lii ak lii ak lii ak lii problème boobu dafa nekk problème boo xam ne mooy lu ñuy wax la bonne gouvernance fii dañu am ay loi dañu am ay texte dañu am ay règlement mais mënuñu ko fonk mënuñu ko respecté balaa ñuy balaa ñuy liggéey il faut mu am lu dramatique lu catastrophique mhm. nit moo dee rek ñu soog a jóg. mais bu loolu passé quelques minutes ñu ñëwaat ci mauvaise habitude. Hmm. Hmm. nguur mooy njëkk a commencé loolu. moo tax même nguur buy accusé di naan woy population yi ñu di occupé ay places yu bon mais population yi dañu ne ñun si yow lañ koy roy parce que yow si sa bopp am nañu infrastructure yoo xam ne yaa ngi koy def foo xam ne waroo ko def ba muy am mbën boo jëlee le le poste le de santé bu def fii Yoff Philippe Maguilène Senghor léegi lañu ko réglé mais fii la toogoon pendant plus de quarante ans chaque fois inondé ba ci biir lan la dañ ko teg fi ñu ko waroon teg te loolu état la boo jëlee Kaffrine nga xam ne foofu la mhm. dem teg fa ay nit ak ay école mhm. ndox bi ñëw fàttali foofu parce que ndox day dem toujours ci nga jël ay dëkk yu bëri pratiquement di nga gis ay infrastructures yoo xam ne état ci boppam sax ko moom sama dëkk Ziguinchor le Saint Malick fan fu ko tëj chaque année ñu ngi ci mbënn ci mbënn ci mbënn ci mbënn ci mbënn ci mbënn ci mbënn ba te boobu doone population ñoo ko def hmm. état moo ko def fii Thiès hôpital bu poste santé bi nekk ngent dëmb dafa noyé noyé noyé ba obligé foofu foofu du ñu ne population la état moo ko tabax donc bu fekkee ne état ci boppam nekkul royukaay il sera très difficile pour que nga mën a condamner les populations parce que après tout ki nga xam ne mooy rendre compte du population yi population c'est anonyme hmm. c'est l'état et en premier chef autorité boo xam ne moom la ñu fal moom la Sénégalais bi laaj ay compte mhm. monsieur Sané ñu waxaat tuuti ci programme euh, décennal de lutte contre les inondations bi euh, notamment neuveelu ponk bi yaa ngi wax sànq ne waroon nañu taxawal euh, selon boobu point observatoire boo xam ni ñu bari ñoo koy sekk ngir mën a saytu liggéey bi foofu rôlu assemblée nationale mooy ñëw ndax moom moo war a jiitu ci saytu li nga xam ne nguur gi mu ngi koy def yow en tant que ancien député lan nga ñu mun a wax ci responsabilité wu assemblée ci situation bi taxaw tey muy mbënd mi laal gox yu bëri normalement bu doon assemblée dafa doon marché normalement député yi ci seen bopp dafa am ay mission yu bees yoo xam ne ci suñu constitution bu bees ci ci ci règlement bu bees bi dañ ko leen doon li mooy évaluation des politiques publiques donc député non seulement da ngay voté budget donc xaalis bi di génn noonu pour projet bi yow la deuxièmement da nga war a contrôler action bi et troisièmement da nga war a ñëw interpeller gouvernement ci à travers évaluation politique mais bi problème bi amee ba léegi benn député ngaangul lu waral loolu c'est parce que ñun fii tourné rek ay député ay président mais ñëpp pratiquement ci ginnaaw président bi la ñu nekk député yi ko mënoon def mooy député yoo xam ne ci majorité la ñu nekk ñooñu tey seen carrière ak seen avenir yëpp ci président la dépendre mënuñu wax loo xam ne du neex président bi ñoom ñëpp dañu ne tekk léegi président boo leen remplacé ba président mooy interpellé gouvernement alors que normalement mission député la mais kooku nag tout ça mooy li may wax toujours problème gouvernance bi mi mooy édifié sur le fait que amul séparation de pouvoir et que nos états n'ont de démocratie que par le nom donc député lu mu waroon def ragal nga ko def parce que seen mandat léegi mu jeex te fii képp nekk député dafa fekk président moo nangu nga nekk député président ku mu nangu nga nekk député di nga ko doon ku mu bëgg nga nekk député di nga ko bëgg léegi yow bu fekkee ne la leer ni yow sa mandat ci président le départ nekkul ci population le départ ci heure bi lan wax et boo doon wax ci tuuru population doo seetaan population yi Thiaroye doo seetaan population yi périphérie ba ci région yi ba pare nga ne amoo looy wax jusqu'au moment où nous parlons ak lu politicien bëgg rajo ak télévision coté boobu ñoom ñëpp dañu ne même autocensure générale ñu ñu bëri dañu ne seen baat moo dee. jërëjëf Abdou Sané ñu ngi lay gërëm bu baax euh, fàttali ni yow nekkoon nga député expert nga itam ci wàllu protection civile amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di gërëm di leen di encourager ci liggéey bu rafet bi ngeen jërëjëf.